ndokkeel ñëpp itam ci bis bu tedd bii nga xam ne moom lañ génn ci fan yii muy àllarba ji weesu wala talaata ji weesu muy bis boo xam ne bis bu rëyee rëy la ndax li ko rëgg li ko tax mu doon lu rëy moo dina dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne suñ bal suñ borom da ko rëyal ci ci ci moom kon loo xam ne nag lu suñ borom rëyal la bay wax ne ñi koy def sax wala ñiy àgg foofa ñu néew la ñuy doon wa xalilun min ibadiya shakur kon dañuy xam ne kon loole ka koy def ku ne yaa ngi def lu doy rëy te xam nañ ne seytaane bi nga xamee ne suñ borom won na ko ne yow de dàkku nañ la doo dugg àjjana sawara nga jëm ba mu mu wax suñ borom ne ko day dinaa fexe ba bu may dem du ma du man képp maa fay dem waaye day am ñu may àndal ñooñee may àndal nag ba mu waxee la nga xam ne duñ ko def ba tax ñuy ànd ak moom bokk na ca ñàkk sant suñ borom. ndax dafa wax ne suñu borom su ma la aatiyannahum min bayni aydihim min xalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala ak aktharahum sakirin kon mu mel ni dafa xam na ne cant lu rëy rëy la kon ki nga xam ne taxawal na bisub cant xam nañ ne def na lu rëy ndax def na jaamu yàlla goo xam ne suñu borom bokk na ci jaamu yàlla yi mu gën a rëyal kon ñun bi ñu yàlla dimbalee bañ taxawee ko te sant ci suñu borom feeñal itam xéewal yi nga xam ne moom la ñu xéewal te xéewal yi mënuñ koo jeexal bu buñ te buñ bëggoon a xam nu mu toll itam mënuñoo xam ni mu toll kon ki ñu dimbale ba ñuy sa taxaw di sant sant yooyee xam na ne nañ xam ne mi ngi nuy dimbali ci jaamu yàlla gu rëy nañu xam ne itam mi ngi nuy defal jaamu yàlla gu rëy te kookee mooy Cheikh Ahmadou Bamba kon mu doon loo xam ne bis bu rëy yi la ndax bisub sant suñ borom la kon nag buñ ci jógee wala buñ ci nekkee wala buñ ko dee waajal waxtu wu nekk war nañoo di fàttaliku ki nga xam ne moo nu defal loolu ñu fës yéene ba li nga bëgg li nga xam ne moom la bëggoon ci ñoom ci ñun ñu nekk ca loolee lépp loo xam ne bëggu ko woon mu nekk ci ñun ñu fës yéene ko sori ndax gën a dëgëral li nga xam ne mooy suñu relation bi nga xam ne moo dox suñu digganteeg moom. loola nag duñ ko mën a xamee ci li nga xam ne moom la bëgg ñu jaare noona ci lu weesu ñu fekkee woon ko te yàlla dogal na fekke wuñ ko wala ñu dundoon ak moom te yàlla ñu dog yàlla dogal dugg yàlla dogal na dundu moom wala mu doon wax ñuy dégg wala muy def ñuy gis te loola yàlla defu ko ci yàlla dogal na defu ko ci ñun kon li nga xam ne nag moom la ñu bàyyee nga xam ne moom fexe na ba bàyyiwul genn wet ndax ña ña dundoon ak moom mi ngi doon wax ñuy dégg di jëf ñuy gis ñi nga xam ne ne dunduñoo ak moom fas yéene ba fexe fexe na ba bàyyi leen fi loo xam ne ñoom itam buñ ko dundee wala ñu doxee ca loola day mel ni ñoo ngi doon dund ak moom day mel ni ñi ngi doon ñi ngi ñi nga ànd ak moom di ko déglu di ko dégg loola nag mooy mbindam yi nga xam ne moom la fi bàyyi kon mbind yooyee mu doon loo xam ne ñu war war nañ ko di nafaraat di ko delloosiwaat ci suñu bopp di ko fës yéenee dund ndax loola mooy gën a dëgëral suñ suñu suñu suñ digganteeg suñ Tuubaa mooy tax itam ñu xam fi mu bëggoon ñu jaar fa nan lañ fay jaaree ak buñ fa jaaree ñu xam ne jaar googee mooy mën a àggale fi nga xam ne fi lañ bëgg a àgg loola nag bokk na ca ndénkaan yi nga xam ne moom la daa dénkaane bokk na ci ndénkaan yi nga xam ne moom lañ leen tànnal tey ngir bëgg ñu ko ci suñ bopp te gën koo dundaat ndax mooy doon li nga xam ne moo ñuy gën a dëgëral suñ diggante ak suñ Tuubaa moo ñuy gën a won itam fi mu bëgg ñu jaar fa mooy tax itam ñu mën a jaar fi nga xam ne fi la bëggoon ñu jaar fa loola nag bokk na ca ndénkaan yi bokk na ca tey ji li mu wax mooy yéen ñi nga xam ne da ngeen a wax ne ci man ngeen aju yéen ñëpp lay waxal nag nee na na ngeen nekk ay jullit na ngeen nekk ñu gëm yàlla te yaakaar yàlla te doyloo yàlla ndax loola mooy tax nga mën a am noflaayu àdduna ak alaaxira àdduna si soo fi bëggee noppalu li lay gën a li lay mën a tax a noppalu mooy gëm yàlla yaakaar ko te doyloo ko ndax loolu rek moo la fi mën a muccal kon nee na nañ doon ñoo xam ne ñu gëm yàlla lañ te yaakaar ko te doyloo ko bu buñ ko gëm buñ ko doonee buñ doonee ñoo xam ne ñu gëm yàlla te yaakaar ko te doyloo ko itam buñ yem ci loola wax buñ nekk yem ci loola kese nañ nañ ko feeñal ndax daa war a feeñ ngëm yàlla googee dafa war a feeñ yaakaar yàlla googee dafa war a feeñ doyloo yàlla googee dafa war a feeñ nan lay mën a feeñe nag mooy li nga xam ne moo moom la bëgg ñu def ko te bëgg ñu jaar foofee ñu fas yéene fa jaar di ko def te mooy li nga xam ne moom la fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa andi muy lislaam ji nga xam ne moom moom la ñëwoon ngir jàngale ko te xam nañ ne mooy li li ko suñu borom sant te bëgg itam mu jotale ko ci doomu ji aadama yi ndax doomu aadama yi teg ca tegu ca loola loola kon mooy faw nañ nekk ñu doyloo yàlla gëm yàlla te te yaakaar ko ba noppi itam nag jaar ci li nga xam ne moom la bëgg ñu jaar fa te loolee kanuñ ko woon mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ fay jaar itam nañ fa jaare jaarin woo xam ne dana ba mën a tax jaarin wa ñu mën caa jariñu nañ ci war a jariñoo nan lañ ci jaara nag jaarin wooy tax ñu mën caa jariñu nañ ci war a jariñoo mooy lépp loo xam ne ñoo ngi ko ciy def ci loolee nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi na doon loo xam ne buñ koy def ngir yàlla képp mooy tax ndax nee na day loolu mooy tax ñu mën caa jariñu niñ ci war a jariñoo nee na nag ndénkaan lii li tax ma liin koy wax ma leen koy andil mooy ndénkaan la loo xam ne damaa jàkkaarloog yéen bëgg ngeen dégg li nga xam ne moom laa di leen di dégg moom laa leen di moom laa di moom la moom laa leen di bëgg a jox ci ay ndénkaan bëgg itam ngeen jariñu ci ni ngeen ci war a jariñoo loola nag mooy nekk ay maanaam nekk koo xam ne yaa ngi jaar ci ni nga xam ne ni la suñ borom bëgg nga jaara ca nag mooy lépp loo xam ne digal na la ko nga def ko lépp loo xam ne tere la na ko itam nga bàyyi ko nekk nee na nag moom waxtu wu nekk mi ngi sàkkul njëggal mbooleem mbokk ñi nga xam ne aju nañ ci moom kon nag ku lay sàkkul njëggal yi itam war ngaa war ngay tuub yow bi nga xam ne yow la ñuy sàkkul njëggal kon nañuy tuub ci suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy ki nga xam ne itam mooy fay ëllëg te mooy ki nga xam ne itam mooy mbugalee ëllëg nee na loolu day bu ngeen ko defee te boole ca nag li ngeen di lekk na nekk lu dagan na nekk loo xam ne suñ borom dagal na ko ndax loolu kat moo leen di dimbale ci ngeen mën a jaamu suñ borom ni ngeen ko war a jaamoo nee na nag képp koo xam ne yaa ngi fas yéene ba li ngay lekk mu lew mu lew ci yow ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom lewale na lew na lew ni nga xam ne ni la ko suñ borom lewale bala nga koo lekk na doon lew ci yow nee na loolu ku koy def ku nekk da nga xam ne na nga xam ne doo mën a doo mën a loolee nga lekk te lew doo ko mën a def fenn fu dul jaa jaa ngërëmul ngërëmul suñ borom képp koo xam ne nag li ngay lekk ah, doonut lu lew waaye dafa nekk lu araam na nga xam ne loo góor góorgóorlu góorgóorlu doo ko mën a def ci jaamu yàlla gi nga xam ne moom la suñ borom bëgg ñu jaamu ko nee na ngeen di sàkku waxtu wu nekk ci ci bu ngeen bëggee lu mën a doon njariñul àdduna ak alaxira muccuk àdduna ak alaxira lu ngeen ci lu ngeen ci bëgg te lu ngi lépp loo xam ne yéen a ngi koy sàkku te bëgg koo am nee na na ngeen ko sàkkoo ci ragal yàlla ndax mooy li nga xam ne moo leen ci mën a dimbale ngeen mën koo am ñi nga xam ne ni ngeen ko bëggee te amee ko nu kawe seen jot képp koo xam ne itam nee na day bokk na ci li nga xam ne day tekki ne kii am xelam matut mooy ki nga xam ne day jaam dafay ja dafay yaakaar àjjana yàlla suñ borom ëllëg te boolewu ko ak jaamu yàlla ndax na xam ne jaamu yàlla gi mooy yoon wi nga xam ne moo la fa mën a àggale ginnaaw ndimbalul suñ borom kon faw boo bëggee àgg fi nga xam ne mooy ajjana ja faw nga boole koo jéem a góorgóorlu ci jaamu yàlla nee na ñi képp koo xam ne nag def nga sa itte jëpp mooy jéem a jublu ci lu baax rek boole koo itam def nga li ngay def lu baax loole du tax nga gis ci sa bopp du tax nga gis nga yëg ci sa bopp da ngay xam ne rek yaa ngi jaar ci yoon te yoon woowee mën na laa àggale te man man nga caa yaakaar ak àgg kon nag loola tax na nee na yaakaar comme yaakaar rek nga ci ànd nga ci àndal war naa tax waxtu wu nekk itam ngay tuubal suñ boroom di ko jéggulu ndax xam ne li ngay def sa mën a mat ni mu war a mate mënut a baax itam na mu mën a baaxee lu dul ndimbalu suñ borom nee na yéen ñi nga xam ne nag da ngeen a wax ne ay jullit ngeen wax ne itam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen fas yéenee topp jaar ci li nga xam ne ni la ko suñ borom. an an ni bëggee ñu jaare noona nee na ñoo ne nee képp koo xam ne def nga loolu nee na na nga góorgóorlu ba lee farata yi nga xam ne munta ñàkk ci yow nga xam ne yaa ko war a taxawel sa bopp nanga góor góorlu ba xam ko ndax lii tax ñu war a góorgóorlu ci jéem a xam farata yi nga xam ne moom la suñ borom faratal ci ñun moo di ne yonent bi sallallahu mi nga xam ne moo andi farata yooyee wala moo andi jaamu yàlla googee ci nañ ko war a defalee nañ nam la ñuy la yàlla njëkk wax ak moom mooy iqra kon képp kenn ku mën a doonati koo xam ne ñëw nga ngir bëgg jaar fa nga xam ne fa lay fa jàngale jaar faw da nga góorgóorlu ba jéem a xam li nga xam ne moom lay jàngale ci ci jéem koo jàng jéem koo xam ci sa kemt lay kattan loolu nee na lépp loo xam ne yéen a ngi koy def ci àdduna si ci lu mu mën a doon itam na ngeen ca sàkkuwaale ngërëmul yàlla suñu borom moo xam loole lu ngeen wéet di ko def la wala lu ngeen ànd ak mbooloo di ko def la lépp rek na ngeen ci nangeen ngeen ci jiital nangeen ngeen ci sàkku ngërëmal suñ borom na ngeen ci sàkku itam ne ak jaamu yàlla ngeen ci jublu ndax loola mooy tax lépp lu ngeen def du dara du ci neen te àdduna si xat na xataay boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi fi war nga waroo am jotug mën a neenal dara waroo am jotug war a mën a yàq dara ci sa dund da ngaa war a def fas yéene ba góorgóor lépp looy def rek yàlla daje ci ngërëmu suñ borom loolu nag ni nga koy mën a amee mooy lépp looy def lu mu mën a doon rek na nga ci jublu jaamu yàlla suñ borom nee na andil naa leen laabire bii nag li tax ma andil leen ko muy dama bëgg bu ëllëgee kenn ci yéen du gàccewu ci kanam suñ borom kenn ci yéen du taxaw ci suñ borom di am lenn loo xam ne moo moo di rus wala ak yeddeel ci kanamam loola nag li leen ciy mën a dimbale mooy ndimbal mooy lii nga xam ne moom laa leen di jotali ngeen góorgóorlu ba di ko def ni nga xam ne ni lañ ko ni lañ leen ko sante yàlla nañ suñu borom mi nga xam ne nag mooy borom ndimbal te mooy mën a jàppale nit moo mën a taxawu nit ba li nga xam ne ba mu war a mën a jaar mu mën fa mu fa war a jaar mu jaar fa moo mën a taxawal nit itam moo mën a dimbale nit ba fa mu war a jaar mu sax ca laal na suñu borom dimbaleel boppam ba li nga ba jàmm yàlla ba li nga xam ne moom la bëgg ñu sax ñu def ko ñu dimbale nu bañ sax ca dimbali yu itam ba duñ cee jóg bu mukk ba bu ëllëgee ñu mën a dajeeg dël yi nga xam ne moom la suñu borom dël ñi nga xam ne dañoo jaar ci ay ndigalam ja moytu ay tereem loolu mooy kon di benn ci ndénkaan yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa daa dénk ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom te bàyyil ko fi ñi nga xam ne itam ñoo ñëw ginnaawam ngir ñu xam ne fii la jaaroon fii la bëgg itam ku fa jaar kon yàlla nañu suñu borom taxawul boppam yàlla suñu borom sàmmal boppam yàlla nañu suñu borom dimbale ba waxtu wu nekk ñuy jaar ci yoon wi nga xam ne fi la war a jaar yàlla ñu suñu borom dimbale ba suñu cër du xam lu dul jaar fi ñu war a jaar yàlla nañu suñ borom dimbaleel boppam ba suñu cër du jaar fenn fu dul fi nga xam ne fi la suñu borom bëgg ñu jaar fa loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko ko defal ginnaaw loolu itam ñuy tàllal suñu loxo di ñaan borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ak man te mooy ki nga xam ne mooy manal Cheikh Mamadou Buntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te kenn ku ne xam na ne xam na yéeneem ju réy ci bëgg a liggéeyal Serigne Touba kenn ku ne itam xam na ne am na yéene ju rëy ak ak fas yéene dox ci dund ci di jéem a ci taxawu lislaam ak taxawu yoon wi nga xam ne mooy yoon Sëriñ Tuubaa wi suñu borom yàlla ko dimbalee mucc ci bépp ndog ak bépp ak bépp àndandoo boo xam ne bokkut ak moom fu jublu ba li nga xam ne moom la yéene mu mën koo def te du ci dajeeg benn pakk du ci dajeeg benn benn ndog loola itam mu defal ko képp koo xam ne say sa yéene ak sa ak say taxawaay yëpp mooy lislaam yàlla na la dimbale